jataayi kursiyul imaami malik bi madinati tuuba jataayu gaaral téere bii nga xam ni mooy umdatul ahkaam eh, darsi yi weesu nag manees na ne lépp loo xam ne aju na ci muqaddimaat yi eh, tënkoon nañu ko yaa xam muqaddima yi ahadithul ahkam la ci bopam wala muqaddima yi borom téré bi tay nak insha allah danañu dugg ci garal téré bi ci bopam te téré bi comme ni ngeen ko xamé gise ko ci nuskha yi ngeen yor ne mi ngi tambalé ci kitabut tahara gannaaw muqaddima yi borom téré bi gannaaw introduction kon kitaabu taxaara la téere bi tàmbalee xadis ba ca jëkk it mooy xadis bi nga xam ni moom la la alxaafidul maqdisi di wax mu ne an umar bni alxataab radiallahu anhu qaala samictu rasul allahi sal allahu alayhi wasallama yaquul innama al acmaalu binniyaat أو إنما الأعمال بالنية وفي رواية بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه لولا موي نص حديث بي بني دون فيري نص بنك دني وخركني جلنا نتي عمر بن الخطاب رضي الله عنه يالنا يالا گرمكو ولا نغنا يالا گرمنكو داخ صحابه يالا گرمنا لين لقد رضي الله عن المؤمنين قال moom Umar ibnul Xattaab nee na sami'tu rasulallahi sallallahu alayhi wa dégg naa yonent bi sallallahu alayhi wa sallama muy wax naan innamal a'maalu jëf yépp binniyati ñu ngi aju ci yéene wala ñu ngi wére ci yéene wa fi riwaayatin am na ci ak solowin goo xam ni olie binniyati waye binniyati mo ci ñew kon da nga naan binniyati ñu ngi aju ci yene yi wala binniyati ñu ngi wéré ci yene yi wa innama li kulli mrin te it ñeel na cam sune maana waa la mu yéene ci jëfam fa man kaanat hijratuhu képp koo xam ni sa gàddaay ilallahi daa jëm ca yàlla danga gàddaay wuti yàlla wa rasulihi akub yonentaam kon hijratuhu lañu ca jublu ci xadis bi xaasatan mooy képp koo xam ni kaanat hijratuhu gàddaayam ga mu gàddaay jëm madinatul munawwara ilallahi yàlla la fa wuti dafa jëm ca yàlla wa rasulihi ak yonentaam ba ka day fa payoru gaddayam gogu ila allah day wat ci yalla wa rasulih ak yonentam waaye wa man kanat hijratuhu kep ko xamne ne gamu ga Joge, famu joge fa madina ilaa dunyan aduna la ci aduna la jëm aduna la wut ci fi ci madina yusibuha aduna go xamne dana ko fi amee aw imraatin wala soxna la fi wut si yatazawajuha goo xam ne dana ko fi takke fa hijratuhu kon njariñal gàddaayam googu ilaa ma haajara day yem rekk kepp ca la nga xam ni daa gàddaay ilayhi jëm ca loola kon lii mooy nassu xadis bi eh, li ci des nag mooy ñu taxaw ci kitaabu tahaara waaye taxaw ci xadis bi لفظا لفظا وكلمة كلمة وجملة جملة taxaw lépp lu aju ci xadis bi ñu détaillé ko waaye lu jiitu loolu danañu wax tuuti rek manhaj méthode bi nga xam ni moom laa fas yéene di doxee ci sunu dars yi mooy méthode yaatal ci firi xadis yi ndax dafa mel ni loola mooy li ci yitteele lool wa illaa baat yi nga xam ni moom la xadis yi làmboo euh, la shakka ni ñoog sunuy mbokki daara ñoo ci bokk yem képp koo xam ni jàng nga arab euh, wala jàngu arab sax waaye am nga traduction wu téere yi xadis yi xadis boo ca taxaw danga xam la nga xam ni moom la làmboo ci ay baat kon taxaw firi baat yi kese taxuñoo jóg waaye yaatal pirim xadis yi ba nga xam ni mboole mi wala la ëpp ci masail yi nga xam ni mënees na ko jukkee ci xadis yi danañu taxaw ci masail yooyu comme ni ñu ko waxe woon lépp rek ñu jéem dëppale ko li nga xam ni mooy al madhab al maliki ci la ëpp ci sunu sunu doxin loolu duñu tee nag yenn saay ñu junjaale yeneen madahib yi ci seeni wax loola teewul bu fekkee ni ñu ngi firip xadis di leeral maanaa ya nga xam ni xadis bi da ko làmboo loolu duñu tee ñu njéggaani ay maanaa yu am solo aki i it jële ko ci yeneeni mazahib waaye bu dara desul nag lu dul wane fiq gi nga xam ni des koy jukkee ci xadis bi bu boobaa la ëpp nag ci sunu doxin mooy tënku ci li nga xam ni mooy madhabu malik xasaba ni ñu firee hadith boba ak masail fiqhiya yi nga xamni mom lañu ci jukke kon loola moy don sunu doxim inshallah ci firi gi kon ab hadith bu ñuy firi manesna firi firib xadis masail ya ca aju ci ben jotaay waye manesna firi firib xadis it masail ya ca aju ci ñaari jotaay ba ñetti jotaay loola yep man na nek inshallah benen bi danañu xadis bu ñu ci wax incha allah danañu taxriij hadith ba ndax melna na ni daara ji catégorie yépp fi nek amna ci ñoo xamni ni macha allah sunuy naataangoo lañu euh, ci ci gëstu euh, amana dañuy ko rek ak fàttalikoo loo xam ko la nga xamni dañ ko xamone ca lañu diko fatali ko ci suñu jota yi da fek ñun lañu ci man ñoom man nañ ci lu mel nonu wala man nañ sax lu ko raw lu ko gën a yaatu waaye daa fekk ni yi tënk ci jamono daa bari lool ba boo leen tënkalee yi ëpp solo ñu fàttaliku loo xam ni masoon nañ caa taxaw wala xamoon nañ ko gëcca ba xaw a mel ni dañ koo fàtte kon loola tax na danañu xadis bu ñu fi tudd danañu tarjama ki nga xam ni mooy raawi xadis bi ñu xam kii solo xadis bi di saxaabi bi mooy kan waaye it buñ ca noppee baati xadis bi danañu leeral lan la xadis ba làmboo ci ay baat waaye yan la làmboo ci ay maani ak yan fayda lañ ci mën a jëlee naka noonu it dinañu taxriij xadis bi xadis bu ca nekk danañu wax ña nga xam ni solo min ashabil ashaabil al alxadisiya ak la nga xam ni mooy seeni wax ya nga xam ni wax nañ ko jëme ci xadis ba ci njariñ yoo xam ne bi da ko làmboo loolu yëpp incha allah ci ñëw buñ ca noppee nag ñu dal di taxaw ci masail yi nga xam ni mënees na ko jukkee ci xadis bu nekk lii incha allah mooy doon sunu doxin ci sunu jataay yi ci ndimbalal sunu borom kon kitaabu tahaara comme ni ñu ko waxe woon léegi moom la alxaafidu almaqdisi ubbe téeréem bii naka noonu boroom xam-xam yu bare bari ci ñi bind ci ahadisul ahkam kitab tahaara tahara lañuy ubbé seeni téré kadhalika ñu bare bare bare ci ñi bind ci al masail al fiqhiyya le ëpp ci ñoom kitab kitaabu tahara lañuy ubbé ubbee seeni téere kon momit it la def buñ la né kitab nak ci lañu gëna min moy téré téré nak buñ ko waxé day melni ab téré la ah comme jukki bi rek ñu ne la li de ab téré la waye da nga gisub téré bo xamni dang ca fekk ay kutub buntu ñoom lu bari ci mu mu mutaqaddimun yi ñu jiitu ci boroom xam-xam yi lu baree bari ab buntu yenn saay daan nañ ci jëfandikoo baatu alkitab nga xam ni benn téere la waaye danga cay fekk kutub yu bari kitaabu tahaara kitaabu salaati kitaabul hajji kitaabu sawmi kitaab azaka kitaabul buyuuxi kitaabu nikaaxi ba téere ya jeex kon yooye nga xam ne ay kutub lañu Euh, dajaloo ci benn feggu dajaloo ci benn benn téere comme ni ñu ko miine kon kitaab buñ la ko waxee fii lañu ca jublu mooy ab bunt boo xam ni lamu mu làmboo ci ay masail mooy masala yi aju ci wàllu laab bu fekkee ni laab la nag arab di ko wax ab tahaara baat bi màndaxeem ci sarf faala lay màndaxeel ci ci sarf mooy wasnoom cosaanu baat bi mi ngi jóge ci ab tuxuru eh, tuxuru gi nga xam ni mooy laab tuxuru nag comme ni ko boroom xam-xam yi waxe boroom xam-xami luxa yi ak boroom xam-xami sharia yi ñoom ne nañu tuxuru moom danañ ko seddale ñaari xaaj xaaj bu jëkk bi mooy définition am ci wàllu luxa ñaareelu xaaj bi mooy définition ci wàllu sharia bu fekkee ni définition la ci wàllu luxa arab bu la waxaan at tahaara lamu ci jublu mooy annadaafatu nazahatu min al adnaasi wal aqdaari wal awsaaxi loola mooy set ak sell ba dara taqu ci ay sobe ak ay tilim tilim ak ay salte loola mooy annadaafa mooy ak cet buñ la nee nag lii kat set na mooy kat mucc na ci xeeti sobe yi waye mucc na ci xeeti salte yi mucc na yit ci xeeti tilim tilim yi kon loolu mooy at tahaarati fil at tahara fil lugha tahara gogu nak fil lugha naka noonu moom la alquran jëfandikoo na ko ci ay yoon bokk na ci fa ko alquran jëfandikoo fi sunu borom di waxe ni wa yunazzilu alaykum min as-samaa'i maan li yutahirakum bi yàlla neena na seen borom day moo wàcc ci yéen wàcc ci seen kaw tukki ci asamaan si am ndox moo wàcc am ndox gu tukki ci asamaan ngir laabale leen ca ndox mooma ngir laabale leen ci ndox mooma kon nga gis yàlla dafa jëfandikoo wàllu eh, taxaara eh, da ko jëfandikoo wàllu taxaara eh, te fekk la mu ca jublu mooy set gi nga xam ni mooy xeeti cet yépp mooy xeeti cet yépp go xamni ci set ci ay tilim tilim waye set ci sobe set ci yaram waye set ci xeeti set yeb euh baatu tahara it di arab dina ko jëfandikoo ta fekk lamu ci jublu moy at tanazzuhu anil uyub wal maasi moy set sel wulis ayib yi ak wulis xeeti moy yàlla yi képp koo xam ne mucc nga ci xeeti aybu yi xeeti uyub yi ayib yi kooka seet na ci ay ayib koo xam ni it mucc na ci xeeti mooy yàlla kooku yit seet na ci mooy yàlla looloo tax arab di la wax ni qalbun taahir xol bu laab wa irdun taahir yaram wu laab kon xol bu laab am na yaram wu laab am na kon laab dana nekk ci xol waye kadhalika dana nek ci yaram kon xol bu laab li tax arab di wax xol bu laab dañ ko niroleeg sobe soo xam ni sobe si ñuy daj ci yaram sobe si ñuy daj ci yaram daj ko ci yére daj ko ci barab loola yépp xeeti sobe la xolit bu ci dara taqul arab dana la waxal ni kii kat xol bu laab la amee kon xol bu laab bokk na ci sunu borom fi muy misaale lu jëm ci xol bu laab fi sunu borom di waxe ni xuz min amwalihim sadaqatan tutahiruhum wa tuzakkihim biha yàlla ne yonent bi jëlal e, ci alal yi gaa yi nga xam ni e, dañoo dañoo sofaanoo woon e, ak yenn ndigal yi jëlal ci ñi nga xam ni dañoo war a joxe azaka jëlal ci ñoom Euh, sadaqa mooy zakat goo xam ni da nga leen ci laabale xam nga laab joxe joxe bu fekkee ni day dellu di laabal ka joxe woon kooka warees na cee dégge ni loola du laabuk yaram waaye du laabuk jëmm waaye laabuk xol la moo tax mu ne ko tutahhiruhum wa tuzakkihim biha ca sarax soosa ngay jële ci ñoom danga leen ci laabale kon loola alquran foofu junjul laabuk yaram wuuteeg nag wa yunazzilu alaykum min as-samaai maan li yutahirakum bihi loolu laabuk maxsuus la laabuk yaram la laabuk jëmm la waaye xuz min amwalihim sadaqatan tutahiruhum googa laabuk xol la ak fi sunu borom subhanahu wa taala di waxe ba tey ni innama yuridu llahu li yudhiba ankum rijsa ahla albayti wa yutahirakum tathira yàlla nee na yàlla day dafa namm boo gisee mu leen di jox ay ndigal ndigal yu teeng yéen waa kër yonent bi yàlla la mu ca namm mooy dafa bëgg sorele leen faxas ci seen kaw lépp luy sobe yéen waa kër yonent bi waaye it daf leen bëgga laabal ak laab gu joteeg laab kon loola it laab googu tekkiwul ni laabug yaram la waaye laabug xol la ci namm foofu kon ala kulli xaal استعمال الطهارة يا خمتي الطهارة الحسية لا وراء الطهارة المعنوية لا بمتمنى دون القرآن اندينكو اه، استعمال دينك لا شك أني بخم اه، برام خم خم من نخ استعمال جفن لكو اللاب تلا بك خل نخ حقيقة لا ولا مجاز لا بني مجاز مو متافور نخ حقيقة لا ولا متافور لا مجاز لا لولو borom خم خم yi ننتي nañ ci ابن راشد tax من علماء المالكيه مو بند اللباب اللباب في بيان ما تضمنه ما تضمنه أبواب الكتاب من الأركان والشروط والموانع والأسباب موم ابن راشد القفصي موكو بند بي قرافيلة أه، وايت مو بند المذهب في ضبط مسائل المذهب ودون برم خم خم بمكت مذهب بي موم نينا وقد وردت تارة إزالة الأدناس الحسية وتارة في وقد وردت تارة في إزالة الأدناس الحسية وتارة في إزالة الأدناس المعنوية فوجب أن تجعل حقيقة في القدر المشترك لأن طهارة ين نيونا تي القرآن كم نمو نيوكي اللغة العربية تفك لن تجبلو موي lañ ca jublu mooy deñal sobey yaram sobey palaas sobey yére xeeti sobe yooyu nee na alquran ñëw na naka noonu ci luxal arabiya ñu yenn saay ñu jëfandikoo ak laab te fekk lañ ci jublu mooy deñal sobe suñu mën a daj ak yar ak loxo yenn saa mu ñëw ah, fekk lañu ci jublu mooy deñal sobey maanawi misaal mu njëkk ma lii bi fi mu ñëwee tey wane ni deñal sobe suñuy daj la wa yunazzilu alaykum min as-samaa'i maa'an li yutahhirakum bihi ca yooyu la bokk fi nga xam ni daf fa ñëwee it tey wane ni la mu bëgg a sobe samuy jublu sobe samuy laabal mooy sobey maanawi xuz min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum ci la bokk innama yudhibu innama yuridu llahu liyudhiba ankum rijsa ahla albayti wa yutahhirakum tathiran ci yooyu la bokk kon ñëw na ci ñaar yooyu yëpp kon moo tax mu ne la bu arab waxee kon at tahaara nga xam ni xissiya bi ak maanawiya bi ñoo bokk am na ci luñ ci bokk ci ñoom ñaar bokk ca yem ci ci ci baatu tahaara googa te mooy lan mooy mutlaqu naqaa'i min addanasi ngir ne euh, set ci ci sobe loolu lañ ci jublu yaa xam sobe xol la yaa xam sobe yaram la ngir rek majaas bañ a am foofu ak ishtiraak ndax nag al aslu arab bu la waxee ab baat cosaanu baat ba mooy ñu jàppe ko ni xaqiqa la du majaas bu fekkee nag fii xaqiqa munu fee dawe bu boobaa ñu jàllale majaas ñu xam ni kon majaas ma lañ ca namm moo tax mu ne ngir daw majaas nañu jàpp ni dafa am al qadr al mushtarak bayna al tahaara al xissiya wal maanawiya ci bu fekkee ni dañoo itlaaq lafzu tahaara loolu la ibnu rashid al qafsi wax al allaamatu rasaa tamit fi charxi al xudud حدود ابن عرفة الرصع دكو شرح شرح بوياتو تي نياري مجلد موم تاميت لولا لويرل ويرل ني نياري نيو تي بوك يم كيب تتا اي تاميت لولا لوخ واخ آه، تي بي موي شرح التفريع بو ابن جلاب موميت لولا لا سخال طهاره موم تشمل الطهاره الحسيه والطهاره المعنويه بو ديمي تي تي الموارد الشهيه على في شرح العشماويه téere chara euh, asma bu yaatu la ci ñaari mujallat yu rëy téere bu ama am solo la donte téere bi muy chara sax muxtasar bu ndaw la waaye li ci ne ci xam-xam macha allah am na solo mi ngi mi ngi tudd al mawaridu shahiya euh, ala al ashmawiya moom it loola la saxal foofu la la wéral boo demee nag ci xataab moom jàpp na ni euh, buñ la nee at tahaara loola la ñu ca jublu kese mooy at tahaara al النظافة من الأوساخ الحسية فقط محمد بن محمد بن محمد العطاب الحطاب الرعيني خمني مو بند مواهب الجليل موم لولا لا وخني طهارة بنكو بويلة اللغة العربية لن تجبل موي الطهارة الحسية كسي لولا تي حقيقة أما جفن دي كوكونات من الأوساخ المعنوية تي تلم تلمو يغا تلم تلمو معنى تلم تلمو خل tilim tilimu jikko nee na jëfandikoo ko ci laabal tilim tilimu maani yooyu nee na loola du xaqiqa majaas da ci lugal arabiya waaye la gën a wér mooy li ibnu rachid wax rasa ak tatta i ak shabraxiiti ànd caak moom loola moo gën a wér ndax nag ulamaul balaaga surtout ulamaul maani bokk na ca la nga xam ni wax nañu ko ne bu fekkee ni majaaz تأكيد مجاز لولا لا يكون إلا شاذا ميتافور بنيكو وخي كل لغة العربية بات بابو كن boobu kenn du موي المجاز لا يؤكد إلا شذوذا تأكيد المجاز نعم يأتي لكن نادرا ما يأتي في اللغة العربية وهو شاذ أيضا الاستعمال جفن جفندكو مجاز بباري فد فدلكو لولا اللغه العربيه دوكو ديف كون بو فكي ني تا يالا باموي واخ والو طهارة انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا دا فا فندلي تط... لاب جي ويطهركم ملابا لن تطهيرا اك لابل جو جوتي تما جاز كين دوكو فدلي كين دوكو فدلي تي جوتال كو dañ koy wax rek pour nit ñi mëna xamni majaz la ndax boko fédélé rek day génn ci buntu majaz bobu dem ci haqiqa motax dé suko fédélé kon loola mooy li wér ne kon tahaara buñ ko boyalee lañu ca jublu mooy al tahaara wal walmaanawiya li ann baynahuma qadaran mushtaraka loola alallaamatu sanusi loola la feddali ci charxu kubra kubra charxu kubra sanusi loola la wax surtout ci ba muy leeral wa kallama allahu musa taklima ndax ñi jàpp ni yàlla du wax وكلم الله موسى تكلم لولو مجاز لا كوم نيكو معتزله يي غيسه موم بامو لين رد دا المجاز لا يؤكد الا شذوزا مين كاي واخ شرح الكبرى كون لولا موي باتو طهاره في اللغه اما الطهاره في الشرع آه، بوروم خم خم تعريف ننكو اي تعريفات يو باري باري باري waye taarif ba ca gëna gàtt gën ca leer gën ca am solo daf ca bok taarif bi ko cheikh ahmad dir dir taarife définition définition bobu da bok ci définition ya gëna a leer ca aqrabul masalik mi ngi cey wax ni tahara mom buñ la ko waxé hiya sifatun xukmiyatun yustabaaxu biha ma manaahu alxadathu aw xukmul xabas nee na buñ la nee laab tahaara nee na melokaan la woo xam ni du melokaanu woo xam ni des koy daj ak loxo du melokaan wu ñuy daj ak bët du melokaan wu ñuy yëg ci yëgukaay yi waaye atte la woo xam ni atte woowu dafa am atte bu mu amal ci melokaan woo xam ni xaal woo xam ni bu ko ca nit ki bu ca nit ki tolloo bu nit ki nekkee ca xaal woowa xaal woowa dana ko mën a may la ko xadas tere woon wala attey xabas tere ko ko mu mën koo def danga set yaram wi set na yiire yi set na jàpp nga ba set kon am nga état boo toll ci sa wàllu yaram état boobu nga toll nag sharia am na àtte bu mu jibal jëme ko ci état bu nga toll te mooy ni bu julli jotee sañ ngaa jóg julli ndax am nga nekk nga ci xaal boo xam ni am nga melokaan yu daje ci yow melokaan yoo xam ni bu julli jotee man nga jog julli ji saa nga kon néna na moy tahara kon sifatun hukmiyatun yustabahu biha des na ca daganalé ci bu fekkee ni tollu nga ci wowa melo wo nga melokaan wowa dana dagan ci yow lo xamni ba nga amé hadas dañ na la won saño ko defati dana dagan ci yow lo xamni ba sa yaram amé xabas wala sa yére dañ na la saño ko defati mooy ku yaramam am sobe munoo julliwaaleeg sobe sobe soosu ku sa yére am sobe munoo julliwaaleeg sobe soosa koo xam ni da toj le munoo julli julli ak tojle googa waaye ba nga dindee sobe sa nekk ci sa yaram dindi ga nekk ci sa yére dem jàpp léegi am nga sa yaram ak sa yére toll na ci état boo xam ni man mën ngaa jóg nag dem julli ji mën ngaa wër kaaba gi mën ngaa Euh, téye alquran ya nga xam ne yépp ñàkka laab gi dañ la ko tere woon ngir ñàkka laab loola léegi sañ nga koo def ba amee ba nga tolloo ci sifa ci xaal boobu kon nee loola mooy taxaara bu ñu nee nag maa manaahul xadasu aw xukmul xabas la nga xam ni xadas moo la ko tere woon day mel ni asalaatu wa tawaafu wa masul mushaf yooye sañoo koo def bu fekkee ni am laabuloo laabu xadas ak laabu xadas euh, laabu xabas euh, kon loola la junj ci ma manaahul xadasu aw xukmul xabas xadas nag buñ la ko waxee tojle la mooy nit koo xam ni état ba yaramam nekke ba xaalam nekke xaalu maanawiyaam mayu ko mu jóg dem julli ji te demul jàppi wala mu dem sangu ji janaaba loola mooy alxadas bu dee xabas nag mënees na koo gis ak lo gis mënees na ko daj ak loxo dem àll yu taq ci yaram wala yu taq ci yére loola lépp ci àttee xabas la waaye xadas du lu ñuy daj xaal la woo xam ni dafa xew ci yow ndax al aslu mooy ñi danga laab la yees nag ba tax mu munoo julli loola nañ naan xadas xadas googu nag laa yaqumu illa bil mukallaf mukallaf moom la ñuy ci ni muhdis dafa am xadas gu ci moom بلنا مكلف نك عند المالكية يا خم المكلف بأحكام الحكم الشرعي يب المكلف بالواجب وبالحرام وبالمندوب وبالمكروه بلنا المكلف جب كوكا موتي دقو دخولا اوليا موتي جك دقو واي عند المالي عند الجميع بلنا مكلف موي كو خمني بالواجبات والمندوبات وبالمحرمات وبالمكروهات يب داكو كونسيرني موم مكلف عند المذاهب الاربعه واي مالك يي دا فا ام لون سي دولي موي ني الصبي ايضا مكلف نيوم نين خالي بو راني دونت ييغغول yeggagul ci مكلف كوكا kooka مكلف لا واي مكلف بغير الواجب والحرام لو حرام دوت مكلف تلو حرام دونوت تيت مكلف تي واجباتي مملا لبرم مراقي دي جنجو قد كلف الصبي على الذي اعتمي بغير ما وجب والمحرم نينو الصبي خالق خامي مكلف لا على القول المختار عند المالكية وهي ليس مكلفا بالواجب وليس مكلفا بالمحرمات بغير ما وجب والمحرم kon xale mu kallaf la bil mandub mu kallaf la bil makruh manduba di sop nañ ci mom mu def ko wajiba di sop nañ ci mom mu def ko muharrama di sop nañ ci mom mu bayiko makruha di sop nañ ci mom mu bayiko kon asabiyul mukallaf loola moy atem bo deme ci tere usuli sax pour ñu baña génn lu sori motax ñu ne la xale buñ ko takale soxna man na dem takal bopam soxna bu xasse tak soxna xale bu doona gul mukallaf man na tak soxna waye bu takke soxna munu ko bayyi munu ko munu ko fase bu ko fasé passé ma du wey du jall ndax lan ndax tak soxna du du minal wasabiyu mukallafun bil mandubat tak xale mukallaf la ci al mandubat yi tak takk soxna du wajib mandub la waye bu fase won soxna sa gannaaw bu ko takke bu ko fasé fase ba du wer ndax lan ndax fase ga lamuy waral moy ni soxna sa day haram ci mom bu ko fase te assabiyu laysa mukallafan bil muharram ta gone ken taklifu ko lu haram kon man na takal bopam soxna waye nak munut fase soxna sa lol day dugg ci taklifu sabi kon buñ la né mukallaf mukallaf da ci dugg ko xamni baligh la aqil comme ni ngeen ni ko ñëpp xamé waaye kooka mukallafun bil waajibaati wal muharramaati wa bil makruhaati wal mandubaat waaye bu dee gone la indal malikiya faqat ñoom rek ñoom nee nañu gone goo xam ne ràññee na mukallaf la bil mandubaati wal makruhaati faqat kon loolu mooy xadas nag ci ci mukallaf bu mel noonu lay wàcc xadasit bu dee xadasal asgar sànq ci biir a dir dir doon taarifale xadas dafa wax ne maa axul xadas loo xam ne xadas dala koy tere bu dee xadas al asgar xadas gu ndaw koo xam ni daa ngelaw a génn ci moom wala dafa tuur ndox wala dafa dem gannaawu kër kooka xadas asgar mooy xadas gi ne ci moom xadas googa nag am na yu mu koy tere tere na ko julli tere na ko tawaaf tere na ko laal kaaba euh, laal mushaf waaye bu fekkee ni xadas gu mag la te xadas gu mag mooy aljanaaba yaa xam ci góor la wala gu jigéen wala xayd nga xam ni jigéen rek lay dal bu dee xadas ak akbar boobu moom dana ko tere yooya nga xam ni xadas asgar da koy tere waaye dana ko tere dugg ci jàkka wala junuban illa abiri sabil da koy tere toog ci biir jàkka dugg ci jàkka toog fa comme ni ko suñ boroom waxe wala junuban illa abiri abiri sabil eh, bu dee xadas akbar bi janaaba la it dana ko tere mu jàng alquran lu dul eh, ay aaya ngir musloo ko ngir musluwaay waaye bu fekkee ni xadas akbar ba mbërëg la règle la wala jigéen ju am doom te setagul xadas gu mel noonu it dana ko tere mu lëkkaloowaat boroom këram danañ tere boroom këram it mu lëkkaloowaat moom kon xadasal asxar julleeg tawaaf ak masul mushaf la lay tere waaye xadasil akbar dana tere ñett yooyu ñu tudd waaye kadalika dana tere toog ci jàkka dugg ci jàkka toog fa romb xanaa dem yoonam waaye dugg ci jàkka toog fa tere nañ ko ko bu fekkee ni xadas gi janaaba la it ki amee xadas ba munatul jàng alquran lu dul aayaak ñaari aayaak ñetti aaya ngir def ko musluwaay waaye bu fekkee ni xadasu akbar ba xayd la wala nifaas règle la wala deretu am doom reetu ku am doom eh, bu boobaa day taxit du mën a ànd ak borom këram bu fekkee xabas gi nga xam ni ci taxaara dir dir mi ngi wax ni eh, aw xabas xukmul xabas moom naka noonu yaquumu bi kulli taahirin lépp lu laab eh, xabas mën na ca amee yaa xam yaram la am sobe mën na caa tegu wala ay yére la sobe mën na caa tegu wala pàkk la basan sajada souf si moket ak lépp khabas man na ca teggu atay khabas man na ca teggu atay khabas nak khabas nak fu teggu muy sobe sosa fofa lañ cey tere moy mënatoo julli ci kawam mënatoo bu nekké ci sa yaramit munulo julle ndok mom bu nekké ci sa yaram muno def tawaf bu nekké ci sa yaram muno sax ci jàkk ji comme inshallah danañu ñëw ci détail yu yu aju ci ba tay rek ñu ngi ci tarif maana tahara Eh, loola mooy li aju ci maana ab tahaara gi nga xam ni borom téere bi moom la ubbee téereem ñaareel bi mi ngi wax moom tamit bi li tax mu ubbee téere bi kitaabu tahaara wax nañu ko ndax gannaaw kalimatu shahadatayni la gën a màgg ci lislaam mooy julli asalaatu imaduddin mooy ponk keno bi gën rëy ci kenoy lislaam gannaaw kalimatu shahada kalimatu shahadatayn kon julli moo ci gën a màgg julli dafa am ay charte yu baree baree bari charte yooyu it ba ca gën a feddaliku mooy laab laab moo ci gën a feddaliku comme julli mooy keno lislaam bi gën a màgg gannaaw shahadatayni te téere bii mu bind jàngale njàngale tawxid taxu ko jóg jàngale ahkaam a sharciya moo ko tax a jóg te bëgg na féddaliku ci ahkam charia yoy moy julli te julli dafa am ay charte charte yoy ba ca gën a moy mooy lolu motax mu jital kitab at-tahara walis yenen bunt yeb ñaarel bi bok na ci li tax mu jital ko ndax ab tahaara mooy miftaaxu ki ni ko nabi sallallahu alayhi wasallam waxe miftaaxu salaati ab at yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na julli moy laab wa taxrimuha at takbiir wa taxliluha at taslim caabi ja mooy mooy laab la armaal ba tax araam na ci yow nga defati lenn nga óor occupé wu ci lu dul julli ga mooy boo nee takbiratul ihraam boo xasee kàbbar li lay jële ci julli ga it mooy assalaamu aleykum comme bi ma anna salaati mooy at tahaara looloo tax mu tàmbalee ko ubbee ko téere bii eh, li tax eh, mu ubbeeku bokk na ci ne laab kat dees na ko defe ndox waaye dees na ko defe suuf dees na ko defe ndox ndox dana laabale waaye suuf dana laabale ak sawara dana laabale ak yu baree bari yi danañ ci ñëw incha allah moo tax it gannaaw bi mu indee xadiisu al amalu bi niyaat mu teg ca indi aju ci wàllu ndox mu teg ci lu aju ci wàllu ndox kon lii mooy sabab ji buntu bii nag di kitaabu tahaara Euh, fukki xadis ak ñett euh, moom la ci almaqdisi alxaafidul maqdisi indi xadis ba ca jëkk mooy xadisu Omar ibnul Xataab bi nga xam ni jàng nañ ko léegi euh, bu fekkee nag Omar ibnul Xataab moom moom comme ni ngeen ko xamee Omar la tudd radiyallahu taala anhu moom it daan nañ ko tuddee alfaaruq فاروق داكنتلم لا نيوكو دان وخسيت ابو حفص بايام ميغي تودون خطاب ابن نفيل ابن عبد العزة ابن رياح ابن عبد الله ابن قرط ابن رزاح ابن عدي ابن كعب ابن لؤي كون موغ يونت صلى الله عليه وسلم تي كعب ابن لؤي فلا ني داجي تي كعب ابن لؤي فلا ني بوك فلا ني داجي تي سين امام يايام ميغي تودون حنتمتو بنت هاشم ابن المغيره حنتمة بنت هاشم ابن المغيرة آه مغيرة هاشم موم مو نيكون فريرو هشام بن المغيرة هشام بن المغيرة مو كون موي بايو ابو جهل ابو جهل بايم من تودون هشام ابن المغيرة هشام مومو موك هاشم ابن المغيرة ньо بوك ليك باي هاشم ابن المغيرة مو جور حنتمة ميغا خامني موي نديو عمر بن الخطاب Euh, Omar nag mi ngi juddu gannaaw amul fiil ba ñay ya ñëwee ca alam tara kayfa faala rabbuka bi ashaabil fiil ñayu abraha yooyu ba ñu ñëwoon doon bëgg màbb kaaba gàtt ya ca xew comme ni ko suñ borom nettalee ci saar woowu euh, ba lo xew-xew woowu weesoo ba teg fukki at ak ñett ci la Omar ibnul Xattaab juddu ba muy nekk ci jamonoy jaahiliya lu jëkk muy tuub moom la mu daan liggéey mooy comme ambassadeur la woon mo nekkon ambassadeur wa quraish xamni lu masan xew ci gox yi mom lañ daan yebal mu teewal len fa luñu daan lañ daan yebal mu dem ci gox wu mo na doon dem taxawu len fofa kon euh, lolu mo taxon ñu nekk ambassadeur la won ci jamono jahiliya mom mi ngi tuup ci juroom bennelu at ca ba yalla yonne yonent bi ba yalla yonne yonent bi euh, nit ñi di dugg ci l'islam ba mu def juroom bennelu at ci la Umar al-khattab tuup ba mu tuubee it moom mooy ñeen fukkeelu nit yu yu nañu euh, juróom ñeen fukk ak juróomeelu nit ñeen fukk ak juróomeelu nit am nañu ne moom euh, mooy ñeen fukkeelu nit bu dugg ci lislaam waaye it am nañu ne am nañu ne mooy euh, ñeen fukkeelu nit ak juróom bu dugg ci lislaam wala ñeen fukkeelu nit bu dugg ci lislaam ci ay góor ak fukki jigéen ak benneel bu dugg ci lislaam kon Omar ibnul Xataab la shakka ni xaw naa yeex a dugg ci lislaam par rapport ak assaabiquuna ñu mel ni Aboubacar Siddiq ak ñu mel noonu kon Omar yàlla dogal na toog na juróom benn li ñu mën a tiire foofu ci leçon nag bari na bu ñu la nee mooy ñeen fukkeelu nit ku dugg ci lislaam wala ñeen fukk ak juróomeelu nit juróom-benni at yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di woote da kenn dugg ci islam lu ñeen fukki nit juróom-benni at ñeen fukki nit ñoo dugg ci lislaam loola liggéey bu metti la bu diis la doxin gi ni lislaam doon yokkoo eh, yéex yeexoon na lool lool lool lool lool lool lool yeexaay goo xam ni jéggi woon na dayoo juróom-benni nit nit ki bu toogoon doon woote eh, benn at rek la la wuyu si motul lool da nga da nga mujj a découragé waaye nag yonent bi sallallahu alayhi wa sallam Euh, ci ndigal la doon doxe juróom-benni at ñeen fukki nit loola néew na kon Omar ibnul Xattaab mooy ñeen fukkeelu nit boo xam ne dugg na ci lislaam ci ay góor waaye ak fukki jigéen ak benn yoo xam ni ñoom ñoo ko jiitu ci lislaam euh, Omar ibnul Xattaab euh, ibnul Jawzi mi ngi nettali ni Omar radiyallahu taala anhu ba nga xamee ba mu tuubee Jibril alayhi salaam wàcc na di bégal yonent bi sallallahu alayhi wa Eh, di ko bégal di ko xamal ni eh, waa asamaan yépp bég nañu ci tuubuk Omar eh, lislaamu Omar it ak tuubam la shakk it ni boroom xam-xam yi wax nañu ni comme ibnu ibnu ibnu tuubuk Omar ak izza la honneur la woon teraanga la tedd woon ci lislaam dafa teral lislaam lislaam dafa tedde ci tuubam dafa amee doole ci tuubam tuub gi it yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ko ñaanoon yàlla ne yàlla doole la la islaam ci kenn ci ñaari omar yi muy omar ibnul xataab ak amr ibnu hisham di abu jahal yàlla dogal ñaan la dal eh, omar ibnul xataab eh, ñëw na ci saxiixul buxaari ba tey eh, bo anas di ibnu abbas wala borom xam ñuy wax ni ma zilna aizzatan منذ أسلم عمر dañu ñu doon ñu tedd xanaa Bilal waxi Bilal la doon ñu tedd depuis Omar Omar ibnul Xataab tuubee kon Omar ku màgg la woon ci lislaam tuubam duggam ci lislaam événement la woon tamit bu rëy ndax melokaanam ya nga xam ne dafa daje woon ci ñoom ak tuubam nag moom la ak it dayo ba mu amoon Cheikh Ahmad Bamba mi ngi koy junj ci رائية آه، تفهم وخني أما أبو حفص الفاروق سيدنا ففي مزاياه لا يرتاب دي لا يرتاب ديار وهو المتم ذوي الإسلام يوم هدى ميما به كان للإسلام إظهار والله فرق بالفاروق سيدنا الحق من باطل أبدته فجار ويوم أسلم جبريل الأمين أتى باذن من هو فوق الكل قهار معلما ان اسلام الفتى عمر عمر عمر بشرى عمر بشرى لاهل السماء والكل يختار به تعزز دين الله مرتفعا له فضائل عنها كلت افكار Cheikh بامبا رضي الله تعالى عنه من ngi آه، ابو حفص الفاروق عمر دي سنوب سانغ مومداي jagle yamu am kenn du ci sikki sàkka muy feddal it li nga xam ni moom la mu arrixuun yi wax ne moom omar moom moom mottali ñooñ islam bis ba mu tuubee ca la mottali ñooñ islam ci ñu doon ñeen fukki góor wa huwa almutimmu zawil islaami yawma hada miiman moo leen mottali ñu doon ñeen fukki góor nee na keroog nag kaana lil islaami idhaaru islaam keroog fés na islaam keroog am na izza mu teg ci ni yàlla kat ndax nit la koo xam ni la joo xam yàlla teqalee ci sunu sang boobu di faaruq yàlla teqalee na ca diggante dëgg ak fen goo xam ni saay-saay yi moom la ñu fésaloon mu dellu waxati ni bis ba omar tuubee jibrilu ñëw na ci yonent sallallahu alayhi wa sallam ci ndigalal boroomam mi nga xam ni moo kawe ñépp moo not ñépp jibril wàcc ci yonent bi di yëgle ni islaamu ko omarkat waa asamaan ñépp bég nañ ci eh, mu dellu waxati ni ak tuubamit diine da caa tedde lislaam da caa yëkkati ko eh, ndaxit dafa am ay ngeneel moom omar ngeneel yoo xam ni xel gàtt na lot na ci mën a takk ngeneel yooyu moom am kookoy omar ibnul xataab Eh, eh, jaayante nañoo moom it ci xilaafa bis bi Aboubacar Siddiq faatoo bis boobu lees jaayanteeg Omar ibnul Xattaab mu doon xalifa yonent bi sallallahu alayhi bisu talaata eh, ci juróom fan ci weeru jumaadal axira mooy maami koor moom lañ naan jumaadal axira ci atub ci atub fukk ak ñett ci gàddaay moom ndax. Euh, Aboubacar Siddiq moo ndénkaane loolu euh, mu doon xalifa boo xam ni néew na ci xulafaa u addina bi moroomam néew na ci néew na lool moroom ci xulafaa yi masa jaar ci lislaam néew na it ci xulafaa wu addina bi yépp ci njiit lu mel noonu mën nañ ne néew na àdduna euh, di di di ko di ko amal ñépp it tudde nañ ko Faaruux nee nañ mooy dàkkantalam ndax sëñ bi junj na ko Eh, wallahu farraqa eh, bil faaruqi sayidina kon loola dàkkantalam la li tax ñu dakkantale ko noona it eh, mooy teqale gi mu teqale diggante dëgg ak fen ci bis ba mu tuubee teqale gi mu teqale ci diggante dëgg ak fen ci bis ba mu tuubee ak fésal gi mu fésal lislaam ci bis ba mu tuubee bu dee faarux gi it am nañu ne yàlla subhaanahu wa moo ko teg moo ko dàkkantale dàkkantal googu لولا آه، سنن عائشه موكو صلو دونت اسناد حديث با اسناد ضعيف لا آه، كوم نيكو الحافظ آه، ابن دحيه وخي بو دمي ابن شهاب نك موم نينا ابن شهاب الزهري نينا بو بوبو اهل الكتاب يهودي نيوكو كو داكانتالي وون لولا بو ديمي تي طبري دنكو فا فك امنا ني يونتبي صلى الله عليه وسلم موكو داكانتالي فاروق غوغو mom Omar moy ki ñu ñëk tudde yit amirul muminin moko ñëk tudd amirul muminin euh yàlla jaaral na ci loxom réew yu bare bare dugg ci l'islam ci jamonoom baytul maqdis gi nga xamni euh ca la coow amé amee la fa la fo mo am coow baytul maqdis gogo Omar ko ubbi duggal ko ci l'islam sham mbooleem sufu sham ta buñ la né sufu sham Syrie lépp ci la jordani ci la Palestine ak pàcc bi ñu fokkar ci ci seen loxo tudde ko Israël ci la Liban ci la lii moo newoon suufu Sham Omar a ca yaatal dugal l'islam ci réew yooyu yépp moom mooy ki njëkk wutal benn sigil registre boo xam ni mbooleem dëkki l'islam yi dañ doon am registre boo xam ni mbooleem jullit ñi ci lañ ci lañ leen daan bind seen tur ndax at mu jot ku ci nekk su dund Omar ibnul Xattaab dala ko daan jox loola moom moo ko njëkk a def moom mooy ki nga xam ni it euh, moo njëkk a tartib loolu nit ku nekk ak sa catégorie sociale ak lañ la daan jox ci at mu nekk loo xam ni danga nga ca daan mën a dundee moom Omar ibn Khattab moo njëkk a def loolu euh, doonoon na koo xam ni fu dëgg féete la daa féete musuta bàyyi xel kenn ci dëgg euh, ci dëgg la ma sa taxaw yoroon na ab xiir woo xam ni it foo ko fekk mi ngi xiir ga ba ku jàdd yoon jàdd goo xam ni euh, ku jàdd yoon jàdd goo xam ni euh, amul peine bu sharia indi ci ku jàdde nii nañ la teg peine bii Omar ibnul Xataab moo taxoon mu daan yor xiiram googu ba ku jàddoon mu teg la ci yoon euh, moom mooy ki nga xam ni it moo njëkk a xaajale ku découpage yi nga xam ni découpage territoire u islam moom moo ko njëkk a def réewu l'islam yi découpage yi wut ay gouverneur fu nekk mu am kum fa teg def ay découpage dëkk sangam euh, gox sangam région sangam fii la tàmbalee fii la yem moom mooy ki ko njëkk a def mooy ki damm kisra yi nga xam ni moom moo leen moo leen déstabiliser ndax ci jamonoom ci la nguuru iwa ngir nguurub kisra jeex euh, muy kisra Yazdajerd euh, ci jamonoom la jeex tak ba xam ni empire bu perse disparaître ci jamonoy Omar ibnul Xattaab moom moo def loolu moom mooy ki nga xam ni moo tënk César Qaysar moo ko tënk ba Qaysar mënatul propager mënatul avancer ba am dara lu muy yilifati ci réewu l'islam ci ci dëkku dëkku arab yi moom mooy ki def loolu mooy ki nga xam ni moo jëlee maqaamu Ibrahim fa mu nekkoon sës ci kaaba gi moom moo ko fa jëlee indi ko mu sore ko ba fi mu tege nii tey moom moo ko fa teglu woon moom Omar ibnul Xataab moom mooy ki nga xam ni moo njëkkat def ay làmp ñu def ko ci Eh, ci jumaa yi surtout ci jàkka yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci buñ daan julli julli taraawiya ay lamp la daan jël fàggu ko ñu defaral ko ko eh, mu ci def eh, diw pour muy mën a leeral li nga xam ne mooy jumaa yonent bi ak kaaba geek yu mel noonu moom mooy ki njëkk a def loolu mooy ki nga xam ni it moo njëkk a taarixal taarixa hijri gii ñuy wax hijir nga xam ni taarixal ci gàddaayu yonent bi nga xam ni tey jii ñu ñu ngi ren jii ñu ngi ci atum junni ak ñeenti téeméer ak ñeent fukk ak juróom-benn taarix googu Omar radiallahu taala anhu moo ko njëkk a def moom mooy premier qaadi ci l'islam premier juge ci l'islam te ki ko faloon mu doon comme juge mooy Aboubacar ne Siddiq foofa ca Madina mooy ki nga xam ni moo njëkk a junj ci ni Alquran dañ ko war a dajale ci benn kaamil moo yoroon projet boobu discuter ceeg Aboubacar Aboubacar gàntal mu soññi ko ci topp ko ci topp ko ci ba Aboubacar nangu mu convaincre ko ci moy kon ñu dajale mushaf bobu mom momit yàlla def na ci jamono xilaafaam fukki at yamu don khilafa yeb mo dan nekkon mo dan jite hajji lu tolloog fukki at yu yu yu tegalo tegaloo doonoon na koo xam min muhaddathi hadhihi al umma ci ñi nga xamni yàlla daf len dan daf len mayon di len ilhaamal ilhaam yoo xam ni deug degg ay yonent rek ñoko dan am nabi saa sallam wax na ni ca jamono ya ma jiitu na am ay ñoo xam ne ay muhaddasun lañu yàlla dare amoon ñun yàlla daan ilham lu baree baree bari waaye sama xeet bu fekkee ni am ci ñu mel noonu nga xam Omar la Omar ibnul Xataab la kon moom Omar ibnul Xataab ba tey bokk na ci li yonente bi saa sallam wax ci moom maa laqiyaka shaytaanu saalikan fajjan qat illa salaka fajjan xayra fajjik shaytaana du la gis mukk nga soobu ludul mu bàyyi yoon wowa dérouté jaar ci beneen yoon yonent bi bokk na ci yon ñi yonent bi seedeel ni al ashratul mubasharuna bil janna fukki nit ñi nga xam ni yonent bi bégal na leen ne waa janna lañu al quran it wàcc na ay yoon di dëppoog omar al khattab radiallahu anhu ci ay idéem ci asra badra ña ñu jàppoon ci xare badr ba xam dañ leen di rey wala dañ leen di jàpp comme otage téye leen ñu jotu seen bopp wala nuñ leen di def omar la mu waxoon يونتي بي دخل اك نيوانت بي القران نيوي دا دبوك عمر ما كان للنبي ان يكون له اسرى حتى يثخن في الارض لولا تي عمر لا واتيون حجاب جيجين ني دي حجاب سخنا يونتي بي دي تنك سين بوب تي بير كيرغا لولا يت لي تاخون مو واتي تي عمر بن الخطاب لا جاري حرام سانغرا يت تي اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا عمر موكو واخون با حرام سانغرا جاري تي لولا سون بروم واتي اك حرامم Eh, yooyu yëpp Omar eh, moo ko moo ko moo moo ci jiitu ba tax na borom xam-xam ku mel ni Suyuti bind na ci risaala tudde ko awwaliyaatu Omar yi nga xam ne moo ci jiitu ñëpp boo demee ci alxaafid ibnu Dihya ci téeréem ba mu tudde marajal bahrayni moom it mi ngi wax ci lu mel noonu waaye mi ngi wax melokaanu Omar ne wa kaana ay aysar ay quwwatu yadayhi sawa nee na Omar it la woon ñaari loxo yëpp tollo woon kattan ni muy lu mu mën a def ci ndeyjoor bi mën na koo def ci càmmoñ bi loola bariwut ci nit ñi kon moom càmmoñ la daa jëfandikoo càmmoñam nu tollook nu mu doon jëfandikoo ndeyjooram ndax ñaari loxo yépp a tolloo woon ci ay ci kàttan tolloo ci man-man euh, moom Umar ibnul Xattaab solo na ci yonent bi sallallahu alayhi wa lu toll ci juróomi téeméeri hadis ak fanweer ak juróom-ñeent Buxaari yoog Muslim dëppoo nañu ci solo lu tollu ci ñaar fukki hadith ak juróom-benn ci hadith yooyu Omar jële ci yonent bi bukhari kese it solo na ci xadis yooyu fanweeri hadith ak ñeent muslim solo ca ñaar fukki hadith ak benn yi ci des yeneen aimma yi ñoo ko solo. moom Omar ibnul khattab comme nañu ko waxee nekk na xalifa yonent bi lu tollu ci fukki at ak juróom-benn weer bisu àllarba nag lañu ko faat bisu àllarba ci ñaar fukki fan ak juróom-benn. Eh, wala ñaar fukki fan ak juroom ñaar ah, ci ci ci wéru zul hijja moy wéru tabaski ci lañ ko faat atub ñaar fukki ak ñet ci gadda yantu sallallahu alayhi wasallam biñ koy faati booba fekk na mu ngi am juroom benn fukki at ak ñet tolloog at ya yonent bi amon tolloog abu bakar at ya mo amon bañuy genn aduna kako ka ko faatit abu luloa al majusi donon benn eh, jamu pukhula jamu muxiratu bnu mi ko faate ca biir jumaa ja booba mi ngi jiite julli suba mu kàbbar ginnaaw ba mu kàbbaree ca la ko jam ah, lu toll ci ñetti jam-jam ci biir bi ak ci nakk bi ci paaka boo xam ne dañ koo tooke woon noonu la Omar génne àdduna bañ koy denc it doomam moo ko moo ko sang di Abdullah ibn Omar ibn al-Khattab waaye Suhaybu Ruumi moo ko moo ko jullee eh, ñu rob ko ci wetu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci biir jàkka ji mooy ci biir xujratu yonent bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam booba nekkagul ci jàkka ji ginnaaw gi lañ ko dugal ci jàkka ji bari woon bari na ay karaama moom Omar ibnul de guerre ñu demoon guerre yi biñ demee ba ci yoon wi jekki-jekki ci euh, benn barab nga xam ni ñu ngi jàkkaarlook benn montagne fekk na seeni noon ñu ngi ca gannaaw montagne ba di leen tëru dafa am biskat di leen xaar ñoom bàyyiwuñ leen xel ñu ngi sàgganu préparé wuñu Omar a ngi xutba yàlla ilham ko mu xam loolo fa ne ñu ne nañ yàlla defal ko kashfu mu gis xaal boobu jekki-jekki rek ci biir xutba jumaa mu ne yaa saariya al jabal al jabal yaa saariya al jabal jabal ki jiite woon lëm boobu ki jiite woon contingent moom saariyat la tuddoon mu ne ko saariya moytul doj bi déviel doj bi déviel doj bi moytul doj bi te diggante boo xam ne mat la ëpp na 3000 mille kilomètres saariya dévié bi mu dévié wër doj bi gis ni ndekete noonu ñu ngi def foofu benn embuscade tëru doon leen xaar loola bi mu amee bi ñu paree ñu laaj ko la doon def mu ne dafa def ci sama xel ni saariya dafa am noon yu leen tëru di leen xaar tànt leen embuscade bi mu leen waxee loolu ñu toog lu mat weer ñooña gañe ñooña bi ñu ñibbisee bi ñuy joxe contrant di ci xare ba ñu ne foofa lañ toll di dégg ga baatu Omar ibnul Xattaab mu naan moytu moytu leen doju moytu leen bi ñu moytoo ci la ñu wër euh, dévier noon ya jàkkaarloog ñoom jàmmaarloog ñoom foofa loolu bokk na ci ay karaamaam bokk na ci ay karaamaam tamit euh, li nga xam ni mooy bis dafa am waaju ñëw ci moom euh, mu ne ko noo tudd keroog la ko Omar gis mu ne ko jàmratu laa tudd jamratu la muy tekki mooy xal xal xalu safara mu ne kuy sa baay mu ne ko sam baay de mi ngi tudda jazwatu kon jamratu ibnu jazwa jazwa moom mooy jum ab bant boo matt boo taal ba muy tàkk fët loole la arab di tudda jazwa comme ñëw ñëwee ci alquran euh, ba tey mu nekko ko jazwaay sa baay kon yaay jamratu ibnu jazwa mu ne ko waaw mu ne ko foo dëkk mu nekko ko xarratu naar laa dëkk xaratu naar mooy temps fa dëkk bañ naan tàngooru safara foofa laa dëkk nga sa nga tudd xal sa baay di jum nga dëkk xaratu naar mu ne ko ban quartier nga fa dëkk ba ban ban ban quartier mu ne ko zaatu lafa zaatu lafa it mooy bu nga xam dafay am sawara juy jëf jëfi mu ne ko dawal sa dëkk ba lakk na waaja dem fekk kër ga lépp lakk lépp lakk lii bokk na ci faraasam ak i karaamaam Euh, bokk na ci it lu jëm ci qissatu niil niilu misra ba ñu ubbee misra jaare ko ci am amru bnul aas at mu jot dañ daan wut benn jànq jege maar bu xamagul góor euh, yóbbu ko bu niil bi bu taxawaan dañ ko daan dañ ko daan jox niil bi sarax mbiru xërëm la mbiru rab la am at moo xam ne bi lislaam duggee misra amru amru bnul aas ne lii kenn du ko def ndax lislaam àndul ci lu mel nii bi mu yónnee bi ñu defee loolu toog ab diir niil bi taxaw ndox ma ñëwatul ndox mi commencé ñiis te musut a saa yu ko daa def buñ ko saraxee jël am njegemaat sànni ko ci mu dee loola ndox mi day ñëw mu nga jinne yi rek comme ni nga leen xamee bu mu yónnee ci Omar Omar ne ko mukk bu ko def waaye Omar bind ko lettre ne ko bu yegsee na nga na nga ko na nga ko na nga ma sànni lettre bii ca ca niil ba euh, bi mu yegsee Omar lettre bi mu bindoon euh, lii la ci bind euh, عمر دا فاخني اما بعد دا فبيخني يعني من امير المؤمنين الى نيل مصر اما بعد فان كنت انما تجري من قبلك فلا تجري وان كان الله الواحد القهار هو الذي يجريك فنسال الله الواحد الواحد القهار ان يجريك فنكم لي دا نيجي جوغي امير المؤمنين جيم تي نيل مصر غناو لول بو فكني يو نيل يو فلوف بي bu fekkee ni daw gi ngay daw ci sa coobare yi bopp nga ko def booye boo nga taxaw bañ a dawati ba faw waaye bu fekkee ni yàlla mii kenn te not lépp moo lay dawloo kon maa ngi ñaan yàlla moom mi nga xam ni mooy kenn te not lépp mu dawloo la mu ne Amru bnul Aas bu lettre bi yegsee na nga ko sànni ci niil ga yetre lettre bi yegsi ñu sànni ko ca niil ba ca saa si niil ba commencé di ball ndox mi di daw ba tey taxawul ba tey ji ñu toll nii taxawul ah, loola sëñ baa ngi koy junj ci wa min karaamatihi baasul kitaabi ila niilin tawaqafa summa al maa umidraaru ne bokk na ci karaamay Omar lettre ba mu yónnee woon ca niilu Misra nga xam ni dafa taxawoon bañ a ball e, waaye bañ ca sànnee lettre ba rek niil nga commencé ball di ko ba tey ndox ma ndox ma taxaw ndox ma taxawatul kon lii moo aju ci lu jëm ci Omar ibnul Xataab radiyallahu taala anhu e, ci tarjama mu doon tarjama bu gàtt waaye danañu. ñëw rek ci taxrij xadis bi waaye dafa mel ni euh, taxrij bi comme ni ñu ko xamee rek euh, mooy xadis bi xadis bu wér la xadis bu màgg la boroom xam-xam yépp dëppoo na Buxaari ak Muslim nañu ci solo ko boroom xam-xam yi dëppoo nañu ci ne xadis bi dafa bokk ci xadis yi gën a màgg ci xadis yi ahkaam yi ak xadis yi lislaam yi kon xadis bu sax la ka ko solo mooy Yaxya ibnu Saïd al Ansaari Yaxya jële ko ci Euh, jële jële ko ci euh, ah, Muhammad ibn Ibrahima Taymi Muhammad ibn Ibrahima Taymi jële ko moom tamit ci euh, Alqamat ibn Waqaas al-Laysi moom mu jële ko ci Omar ibn al-Khattab kon ñu baree bari solo nañ ko ci Saïd moomu nga xam ni mooy Saïd Yaxya ibn Saïd al-Ansaari xufaadul islam yépp ci moom lañ ko solo daanaka Malik solo na ko ci moom Shu'batu ibn al-Hajjaj solo na ko ci moom Hammad ibn Zayd ak Hammad ibn Salama solo nañ ko ci moom Sufyan Thawri ak Sufyan ibn Uyayna solo nañ ko Lays ibn Saad Yahya ibn Saïd al-Qattan Abdullah ibn Mubarak ak ñu bare bare bare bare boo demee ci al-Hafiz Abu Saïd Muhammad ibn Ali al-Khashab moom nee na xadis bii lu toll ci ñaar téeméeri nit ak juróom fukk solo nañ ko jële ko ci Yahya ibn Saïd al-Ansari Ibnul Mulaqin moom nee na Ibnu Mandah nee na ñetti téeméeri nit konte na leen ñoo xam ni solo nañ ko ci Yaxya bnu Saïd al Ansaari eh, boo demee ci eh, al imaam Abdullahi al Ansaari moom mi ngi wax ndax Abu Masud ibn Abdul Jalil ibn Ahmad moo ko jëlee ci moom mu ne bind naa xadis bi ci lu toll ci juróom-ñaar téeméeri nit ci ñoo xam ni ay taalibe Yaxya bnu Saïd al Ansaari lañu <clears throat> kon xadis bi ñooñu ñoo ko solo waaye nag ñu bàyyi xel ni mbooleem. saxaaba yi kenn rek moo ko solo ci yonent bi mooy omar omar it kenn musu solo ci moom lu dul alqamatu bnu waqaas laysi alqama kenn soloo ko ci moom lu dul muhammad ibrahim ibrahima taymi muhammad ibrahim ibrahima taymi kenn rek moo ko solo ci moom mu yaxya bnu saïd al ansaari yaxya nag ci la ko ñi ñëpp solo ci moom ñi ñu tudd fii ñoom ñëpp ci lañ ci ci moom lañ ko jëlee kon xadis la boo xam ni njëlbeen ga xarib la waaye mujj mashhur la shuhra goo xam néew na xadis yu am ak siiw gu toll noonu boo demee ci asxaabul kutub it imaam Ahmad solo na ko ci musnadam Buxaari solo na ko juróom-ñaari yoon fii saxiixil Buxaari muslim solo na ko juróom-ñetti yoon fii saxiix muslim eh, asxaabu sunan al arbaa Abu Daawuda Tirmidi Nasaa'i eh, solo nañu ko ñeenti eh, solo nañ ko ci seeni téere bu dee Nasaa'i solo na ko ñeenti yoon ci sunanam Ibnu Maaja it solo na ko kenn desul ci borom téere yi nga xam ni mu'tamad la lu dul dugalaale na ko ci téeréem lu dul imam Malik malgré nag solo na ko malgré ñu bari solo nañ ko ci moom mais muwatta bu siiw bi hadis bi nekku ci lu dul muwatta bi nga xam ni Muhammad ibn al-Hasan al-Shaybani moo ko solo ci moom muwatta googu la hadis bi nekk ci riwaayaati muwatta euh, bu imam Malik kon hadis bi euh, ñooñu ñooy ñi ko solo euh, Xattaabi feddali na ni. amul kenn ku ko solo ci yonent bi kudul umar ibn al-khattab kenn solo ko ci umar comme niñu ko waxe kudul alqama alqama yi muhammad ibn ibrahim taymi ko solo ci mom muhammad ibn ibrahim taymi yahya ibn saïd moko solo ci mom kon ci teunk li moy taxriiju hadith bi borom xam-xam yi dëppoo nañu ci solo ko borom xam-xam yi dëppoo nañu ci ni hadith bu wér la bila khilafin bainahum كل علماء ulama al متفقون على صحة هذا الحديث بدون خلاف أو نزاع بينهم كن لي موي حديث إنما الأعمال بالنيات آه، لي موي تعريف آه، الطهارة آه، لغة وشرعا كي صلو حديث موي عمر بن الخطاب تنك من لو جيم تي دوندم اب ترجمام وايي حديث بي ني لنج كو تخريجي ان شاء الله دا نيو تنك سونو جتاي في جوخ لين ديك داجي تي بنين جتاي بو ان شاء الله بون تي يكسي دا نانيو واخ لو اديو تي اك تاي اك مسائل اك فوائد ييغا خامني دا نيو تي حديث بي دي حديثو انما الاعمال بالنيات والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته